si mu ne daal wax dëgg yàlla loolu rafetluwu ma ko mm-hmm. maanaam euh, tudde président Macky Sall avenue général de Gaulle maanaam ñu dindi tur général de Gaulle général de Gaulle moom en kala ku àll dafay jóge ba tey ba tey ba tey li may tuddee mm-hmm. maanaam bu doon mm-hmm. keneen pas forcément pas forcément non yàgg yàgg non bu doon keneen it maanaam débaptisé mooy am na kuñ ko tudde woon dindi nañ tur wi tuddee ko keneen. Mhm. loolu la ñuy wax débaptisé. Mhm. léegi maanaam kooku autorité municipale sañ na ko maanaam yeewu suba ni avenue bi diw lañ ko tudde woon bëgg nañ ko tudde diw. Mhm. bu conseil municipal bi dajaloo ba d'accord ci loolu mën na am. loolu loi terewu ko. waaye dafa am loo xam ni maanaam ni ma koy tudde ngor mayewu ko. éthique ndax li tax ma wax loolu li ci ëpp bala ñuy tuddee président de la république maanaam tabax wala leneen day fekk doonatu ko mhm. Senghor bi ñu koy tuddee avenue Léopold Sédar Senghor nekkatu fi bi ñu koy tuddee aéroport Léopold Senghor nekkatu fi mhm. bi ñu koy tuddee state bi boobu jóge na ci nguur gi mhm. euh, li ci ëpp daal chef d'état bala ñu koy tuddee euh, dara day fekk nekkatu fi. Hmm. puisque bu fekkee ni chef d'état bi mu ngi fi déjà cër biñ ko dénk mooy cër bi ëpp solo. Hmm. ci réew mi te wolof Njaay nee na duñ la jox lépp nga jël lépp. wala jël lépp nag muy benn ñaareel bi dafa am kilifa gu ñuy wax Jerry Rawlings. Jerry Rawlings hmm. doonoon na président Ghana. alors dafa am jamono mu ni fi mu ne daal soxlawu ñu may tudde dara. ndax bi may dikk ci nguur gi jéem wut koom-koom taxu ma woon a jóg jéem a mm-hmm. tabax réew mi rek moo ma taxoon a jóg mm-hmm. léegi xëy na awma ma koom-koom waaye am naa lu ëpp solo koom-koom ndax réew mi mm-hmm. maa ngi ci seen biir xol te loolu daf ma doy sëkk ak barke léegi li tax may wax ci affaire ndar bi yàlla dafa dogal ki nga xam ni mooy maire maanaam goro la ci président de la république ndax yàlla dogal na jigéenam mooy sëy ak président de la république muy benn ñaareel bi ministre la euh, moo yilif meeru mairie Saint-Louis mm-hmm. te jàpp naa ni ndar maanaam ay nitu valeur yu baree bari nekkoon nañ fa ba nga xam ni daal soxlawul woon ñuy fab turu président bii fi nekk di ko joxandi benn turu avenue mm-hmm. suñ ko su fekkoon ni ki ko fiy wuutu def na ko comme kenn bu ci wax dara waaye fii mu ne daal defin woowu ci sama gis-gis bu gàtt sooxe na boolee git dafa am li tubaab di wax conflit d'intérêt mm. conflit d'intérêt moo di yow yaa ngi dogal waaye nag sa dogal bi daal dafa xaw a sooxe ndax fii mu ne <laughs> mën na tudd ñeneen waaye boo tuddee président de la république te muy sa goro mais carte gi jaxasoo na loolu may wax nag dafa am sam benn wëllëre bu baaxu aussi ku ñu wax eh, Abdou Aziz Tall mhm. un grand commis de l'État yàlla dogal na doon na fi directeur u BOM doon na fi directeur u LONASE doonoon na fi ministre ci nguuru eh, Macky Sall mm-hmm. def na waxtaan wu am solo bu ni Saint-Louis un projet à polémique lii ma mm. wax yëpp tënk na ko ci anam ya gën a rafete mm-hmm. te defewoon naa ni sax ba mu waxee loolu ba pare kenn xalaatatul sulli lu mel noonu